bokki taalibe yi noo ngi am mbégte di toogaat ci jataay bi nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayub jot ndigal te di ko jottali la ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci mbooleem jullit yi ak taalibe yépp jaar ci kàddu ki nga xam ne moo yore kàddoom te di ko doxal di ko waxal mu di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir mu ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seen maam yi ngànkoon yoon wi te lëkkale seen bopp yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggalu Touba. ñu toog nag fas yéene jottali ay ndigal yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci jullit yépp ak taalibe yépp moo xam yi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew loolu moo tax dañuy fob kàddu gi jox ko sëriñ Ousmane Mbakke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma mu ubbil Cheikh Mouhamadul Basir Cheikh Mouhamadul Basir jottali ñu ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha kon ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ Ousmane. mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni ko sëriñ Fallou Galass Syll la waxee léegi rek ci tàmbali bi ay cantam yóbbaale na suñuy cant ñun ñëpp di wax rek ne ndigal li ba mu jógee ba léegi comité d'organisation grand magal de Touba bi nga xam ne sëriñ Bass moo ko jiitee mos ñoo jóg di xalaat ak yëngu jëm ci waajtaay bi ñu egsee fii nga xam ne sëriñ bi war na koo leeral béral ko ci kanamu askan wi àdduna bi di ko yëg ñu amaat ci sant rek fas yéene diglu ndigalu lépp noo ko waxee ak népp nuñ ko war a doxe fas nañ ko yéene ànd ak mbooloo mi ak mbokki taalibe yi aju ci comité bi yépp ñu doxale ko noonu incha allah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi zawi ridwaani wa bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul al cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul li tariqatil muridiyya xafizahu llahu taala waraha mu jëm ci kàddu yu nuyoo kàddu yu cant ak i ngërëm ak kàddu yu ndokkeel ci at mu bees mi ñu tàbbi di ndokkeel itam ci xew-xew yu màgg yi weesu waaye di ndokkeel ci xew-xew bu màgg bi ñu dëgmal di màggalu Tuubaa sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp.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 ñoom la sañ a digal sañ leen tere fi nga xam ne fa nekk ak lii ay ndigalam yu jëm ci moom kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ginnaaw bu loolu jàllee nag muy fàttali lii nga xam ne moom lañ dégmal muy màggalu Tuuba màggalu Tuuba nag ni ko ñépp maase ci xam day ndigalul sëriñ Tuuba loo xam ne moo ko santaane woon ca njaarim waxoon ca kàddu yu yi yam ca waxoon ñëpp dégg nañ ko ndax sëriñ bi kat dafee bàyyi ko woon dem liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa te liggéey boobee moo tax ñëpp mucc moo tax ñëpp am jàmm moo tax ñëpp am xewal kon bis boobu na mu ko waxee ca bayitam yu tëdd rek xarajtu yowma sabti rabia safar aw thamina asar li xidmatil muxtaari fi sahri safar kon nim mu ko waxewaat rek wax ne sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon bis boobu bii nga xam ne mooy bis bu tedd nga bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax ci làmmiñam leeral li ko taxoon a tukki xam le it tukki bi lam ci jële ak la ko tax a jóg ak lam ci amee ci ay daraja mooy bis boo xam ne suñ lépp itam ci la defaroo moo te ñu def tanassur te sëriñ bi neewoon na law tanassartu la daxaltu naar wal iyaasu billahi taala kon bis bu amutoon ni ko sëriñ mu Ka waxee ca bayitam yi rek budul ko nag bisam bii wolof nasraanu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 waris na koy fàttaliku ndax bis la woon bu wéet mu bàyyi ko woon ca Mbàkke Bari dem di liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi fi njabootam ko tedd ga ñu toll ci xam nga jamono yi toll toll ci di door a tàmbalee dal alxuraan rek muy Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Fadil ak Cheikh Mahamadou Amin mu jël leen dénk leen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 lam gisoon muy cër yu mag yi nga xam ne dafa doon tuddoon lu am mu séen ko te ko ko mës a bëgg ku ne boo ci àggee bu ñu la ko wanee yàlla rekk sa ngëm wala nga dem ba ci biir doomaa demat waaye Serigne Touba ci waajal ko suñu boroom waajal moo tax yàlla nam ko ko nam ko waxe woon rek ca ësal la ko suñu borom waxante woon moom ba àpp ba jotee mu jug dëgmal bàyyi njënd yi bàyyi kër yi bàyyi njaboot bi dem digg ma dëgmal liggéey rasulullahi sallallahu alayhi daj fa lu métte métte métte ndax lu ëpp samaaniya xijaj illa xalilan mu ne ko ca tukki ba kenn wétliku fa ñu néew ko fekk sëriñ gaawan ak sëñ Modou Lo Dagana ak ñu néew ñoo ko fekk foofu kon te ku ci mas accès dalay yeeyuwaat la ci gën a yéeme moom xamoon na fi mu jëm ndax lettre bu mas a bind ak Cheikh Ibrahima day mel ne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 lam yakun seyru aksasin siwa sa man li yaqaada baxdu waxdan na jasa mu ne fa ba jóge fa la fa xew lépp xam ko fa ñépp maase ci jël jël seen lépp jébbal ko Sëriñ Tuubaa ba boo muur Moursène ndege ni dañ lay wax ne la Moursène gépp dañoo juyoo ci lépp am des mbirum Sëriñ Tuubaa mbirum Sëriñ Tuubaa nag ña doon muur te ña ko doon ñëpp maase nañ ci dëppoo ci mbirum sëriñ bi muy tawfeex ju ko suñu borom defal mu de jóge fa ñu andi ko ci yéen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 njaareem fa la Sëriñ Tuubaa mbiram yépp di yëkkati ko bu mel ne jant ba faw kon njaareem googee nag lii ñuy bëgg waxtaan tey fa la xewe fa la Sëriñ Tuubaa xëye bis ndax nattu bii kat di màggal Tuubaa da def fu muy bëgg agsi nattu bu ñu ko teg bu demee ba waxtu wa agsi lu ñu ko mas a teg ci natt dañ koy fuuraat ba mu toll ñu tegaat ko sëriñ bi te du ci am dara lu weesu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 kon baatu màggal ci sëriñ bi la njëkk bàyyi ko daal di ca teg kàddoom yi tedd ne néew ma moo gën tabaski waaye mu yéen de moo gën tabaski ci yéen kon bis mooy suñu lépp kon bu agsee lépp lu ab bi man ci xelam ci xalaatam ci pëstifam ci yéenam ci jëfam woon naa jël lépp jëmale ko ci bis bi moo tax keroog ba ñuy def ndaje ma ci njaarim waxoon naa leen neneen sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nee na màggalu Tuubaa mooy suñu fête indépendance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 sëriñ Abdou Khadre Mbacke nee na Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke moo ko waxoon ne ko sa baay de nee na ma àjjana amuti bis waaye suñ borom ca kàttanam ak xirañam bis ba màggal Tuubaa da agsi ci àdduna bu ñu ba ëllëg ci àjjana kenn ku ci ne sa kër bis ba daa màggal Tuubaa gi daa agsi bu ñu agsee kenn ku ne da ngay xéewal yokkuwaat ci kon màggal gi kenn lambutoo ko ndigalu sëriñ Tuubaa lu mu santaan lu wér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 wa lisaana alarabi wa manaafica addunia wal axirati fihima fa salli wa sallim wa baarik ala sayidina mawlaana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yaa man jahata haasihi alqasidata ahabba ilayka min kulli mawzunin qablaha baatub al arnab dugg ci biir mooy al ijaabatu mooy alif bi raa gi di redan noonu gi di nafa baa gi di barakatu kon Serigne Touba lépp mu ay mbóot la mm-hmm. kon noonu la ko wéyale ba 1927 mu ñibbi si Touba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 ndax sëriñ bi kat dafa xëy ci njaareem bis dajale taalib yëpp xam xamal leen di leen suñ borom de xamal na ma ne jàngoro ji mu fi wàccoon bis nekkee jël bis nekk tey jëlee ko fi ay fan rek mu daal tàggoo te xam ngeen ne ci biir yëf ya am na bis tubaab bi ñëw boobu pes bi metti na lool te xam ngeen pes si moo gën a gaaw gën a garaaw jàngoro ji xew ci àdduna si ren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 ay aynama takunu yudrikumul yudrikumul mawtu walaw kuntum fi burujin musayyada qul inna al mawta allazi tafirruuna minhu fa su ma summa turadduuna ila aalimin xaybi wa shahaada saa su tubaab bi waxee rek sëñ bi tontuwaat ko loolu ginnaaw tubaab bi ne sëñ Balla Coor yaakaar naa bay boo ñu dem ndax kii kat fii ñuy waxee ak fa mu nekk dafa sori fekke sëriñ moom dafa xam lu ñu xamul di gis lu ñu gis ba mu waxee ne suñu borom xamal ma xamal na ma ne jeex na yàlla def mu daal di tàggoo dem fan yu néew mu dajee taalib yëpp ba ñëpp ñëw ndax sëñ bi lépp da koy delloo ci yàlla ne leen lii fi xewoon di laa bëggoon waxtaan ak yéen ndax da ngeen yaakaar ne lu ma soob rek soob na yàlla ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne mu ne lu soob yàlla rek soob na ma ndax ab jaam balaa suñ borom nangu ak njaamam lépp lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon Sëriñ Tuubaa nañ xam fa mu nekkoon.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 tey ñaan suñ borom jële ko fi waaye itam li nga xam ne suñ borom da ko santaane muy ndax atiyahu llaha wa atiyahu rasula wa ulul amri minkum ulul amri minkum mooy kenn ku ne la lay yilif ci fànn googu mooy sa ulul amri ba ca si mooy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun loolu itam xam-xamu médecine di ca nee na kon li nga xam ne wàllu docteur yi santaane nañ ko ci lu ñu war a wattandiku te la ci jiitu mooy masque yi nga xam ne santaane na ko na ko taalibe yépp maase ci di ko def góor góorlu ci def ko ngir xam ne ñoom ci seen xam-xam jàpp nañ lool mooy la jiitu ci la ci war a mos nit bu toon loolu lépp itam nag moom mi fi nekkee Serigne Touba bu ngeen gisee mu def ko daa bëgg woon nit ñi aw yoon mais Serigne bi ku ko xam-xam ne weesu na foofu amul lu muy ragal ci àdduna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 kon bu ngeen gisee moom di ko def day won nit ñi aw yoon kon nee na mu ngi koy digge taalibe Sëriñ Tuubaa kon nit ñi itam te ab taalibe wërta tànnal boppam la ko ab sëriñam tànnal mooy li ci moom alxayru fi maxtaaruhu muxtaaru laa fi lati nufusukum taxtaaru jàngoro ji am na ak ak yëpp bu suñu yoon ndax jàngoro li Sëriñ Tuubaa wax rek is laysa ahadun maasuman min al marad loolu lépp day guddali wax Cheikh mu Mountakha mi fi nekk yaa nekkal fi suñu Tuubaa boo xasee gëm ne am na digle ci lam ci war wax kenn warut a jéem a lijjanti jàngoro ji amul loolu weddi wax sëñ bi la te loolu kon war nañoo xoolaat suñu taalib wala suñu murit ndax ab taalib bi kat du xool la jub ci xelam mu du ko tàndal sëñ bi wala mu jàpp na sëñ bi nii la war a demee ndax loolu rasu alxuraan sax wartandikoo nañ ci wartandikoo nañ ko ci alxuraan wa minhum allasina yusuuna nabi aw yaquluuna huwa uzunun ñii wax ne yonente benn nopp la mooy lii xew rek luy bëgg am ñu jàpp ne sëñ bi dañ ko ko wax lool dañ ko def loo sëriñ bi xam-xamam ak xamam àdduna ak responsabilité bu fekkee dem na ba nit ñi dañ koy influencé kon jërtuñ ñu topp suñu Tuubaa ndax kon suñu yaakaar dañ koy weddiwaat te yëguñ ko ndax euh, ab taalibe ci kenn ab sëriñam dafa mel ne dafa war a mel ne kal may jiti bay na yeneen xaasil yi ab néew ci koy sang du ko laaj foo muy foo muy jëme Serigne wax na ko te Serigne Touba wax na ne wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci li tax murit saadix ak muritam wér mooy lu ko ab sëriñam digal wërta tànnal boppam ba xam li jub na cim xelam wala jub jubu cim xelam te alxuraan waxoon na ko ci saxaaba yi seen digganteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy buñ tànnal seen bopp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 kon loolu itam ñu ngi ci soññ bokk taalibe bi yëpp di eh, gërëm ñëpp nag bëgg ñëpp gën a bàyyi xel waxtu fi mu toll ci biir loolu itam nag moo tax sëriñ bi ngir bàyyi xel waxtu wi ndax li jiitu ci ñun ndigalu sëriñ Tuubaa ndigalu sëriñ Tuubaa moom bu suñu bakkan doon desit jar na ko ci ñun bu ci suñu bakkan doon des te sëriñ bi foofu la nekk bu suñu suñu bakkan doon des itam ndax saxaaba yi kat seen alal am waalahum wa anfusahum bi anna lahum janna anfusahum wa amwaalahum bi anna istara minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum seen alal ak seen bakkan lañ leen laajoon ñun nag ndigalu Sëriñ Tuubaa dara gën koo foor ci ñun kon bu ci suñu bakkan doon si jar na ko ci ñun bu fekkee ay góor lañ wala li ñuy wax dëgg la ci ñun man de ndigalu Sëriñ Tuubaa lii lépp lu naar a dox sama digg moom yàlla na yóbbu sama bakkan te xam naa ne lépp ci taalibe yi foofu lañ ne ndax wóor na wóor nañu ne koo ko defee Pastef te dara ngistal nekku ca Sëriñ Tuubaa dana la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa bakkan ca la war a dese te te te sëñ bi bëggee ko noonu it booy fàddi tàbbee jana kon nag loolu bu ci kenn am tiitaange te xam ne Sëriñ Tuubaa Sëriñ Suwaay bu daana nettali am na ko ko waxoon ne ko yéen kat damaa gis ngeen fonk docteur lool te ma gis Sëriñ Tuubaa fonk doon docteur sëriñ bi ne ko waaw sëriñ bi de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 ba mu ko jëfandikoo daa tàggoog wér di nga neen dama wér ba mu ne ku mës a wér di kon na seenum xel dal bu baax na suñum xel dal ñun taalibe yëpp te xam ne Sëriñ Tuubaa euh, dox na suñ digg lépp ci biir misir yi nga xam ne nag sëriñ bi wax na ko ngir sedd fi àdduna toll ndax àqi dëkkandoo dafa am àqi dëkkandoo nag ñi nga dëkkal kër ñi nga dëkkal ab quartier ñi ngi dëkkal ab dëkk ñi ngi dëkkal ab région ñi ngi dëkkal am réew ba ñi ngi dëkkal àdduna àq dëkkandoo di ca bokk ngir laa dara darara wala dirara rasulullah moo ko wax bul bul loru te bul lore ngir waxtandiku loolu nag moo tax màggal gi lépp loo ci xam ne ndiggalu Sëriñ Tuubaa la lu wóor loolu kenn ñëwut a xalaat di ci soppi dara li nga xam ne nag àdduna indi na ko muy lu baax lu war a am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 ba ba ba déwén ak jàmm incha allah euh, comité bi it jox naa ndigal Serigne Ousmane mu jox ndigal euh, commission bi nga xam ne moo yor wàllu culture ak communication te Serigne Abdoul Ahad jiitu ko ak commission yor wàllu santé te Serigne Cheikh Abi jiitu ko ñu dajale benn commission boo xam ne dañ ci dajale borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la seen xeet xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram.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 ba damaa jeexale ak Seex Mouhamadou Mountakha yóbbante na ma ak cant ci mboolem ñu bokkal Serigne Touba bokk yëpp sëriñ bi nee na mi leen sant di leen gërëm ndax ñoom ñëpp kenn ku ci ne war sa digg moom ci ak fonk akuk yëg akuk jàpp ak yéene ko jataay bi ak lépp lu nekk ñu ànd ko ñoom kenn ku ci ne def ko kon sëriñ bi nee na ci li weesu lépp ak li egsiwut mi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaane ci barkeb Serigne Touba.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 waa jàpp ñoo ne sax dara àdduna nekk fekk daan leen ci fekk bokk ci ne sëriñ bi gërëm la toftal la mbooloo àdduna ci sa diiru sa dund ak diiru sa dund njaboot kon ñooñ ñooñe itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ndax la sëriñ Saliou Mbacké daa wax rek daa wax ne bu ñu wax yoon yi mooy seex sëriñ Touba yi ndax bu tolloo sëriñ Touba akum njabootam la jox kon sëriñ bi nee mi ngi leen sant yéen itam di leen gërëm di leen ñaanal gis ne positif bi ci li weesu lépp ni ngeen ci waxee digg moom kenn ku ci ne li ngay jëf sa digg moom woo nu ko ne bu fi sama am nekkoon jëf ji du ko weesu kenn ku ci ne xam na ne boo doon jëfal Sëriñ itam doo ko kon nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen tax di jëf mu ngi leen di ñaanal ci dara jàmm kenn ku ci ne mu gàtt na ci sa jëf dafay la ca lu ko suñor di gërëm nag mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp bayul kenn di gërëm it lenn ci daayira yi nga xam ne. kenn ko ci ne sa taxawaay ci yoon wi dayir yëpp lu gërëm la ndax xam ngeen ne at mi diiru at mépp muy ci biir réew mi di ci bitim réew fenn fu ci ne at mu jot ña ngay dajee te dayire Serigne Touba di ko indi di ko indi Serigne bi waxtu ne léeg sax mu dem ba ëpp téeméer dayire par bis kon ñoom seen pëseef kenn mënta natt fa mu ak ñi nga xam ne ñoo indi teel toole àllarba yi ñooy ñëpp kenn ku ci ne nañ ko daal di fay dara soppiku ci di gërëm nag dayire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 te xam na ne jumaay Sëriñ Tuubaa kenn du fi ñëw loolu la fi toppe waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom di gërëm itam raw du Rayaahiin nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ba ci université bi ñoom la ko sëriñ bi teg ci seen loxo ñoom itam ba bañ jotee ndigal li ba nëgg ni ci jamonoy sëriñ Saliou Mbacké ba nëgg ni ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu rafet boo xam ne at mu jot lu ñu jëfoon danañ ko yokk sëriñ bi neen mi ngi leen sant bu baax ci ni jàllale li nga xam ne mooy njàng dem sëriñ Touba ba ñi nga xam ne xamuñu xamuñu woon sëriñ bi di ci gën a gindi ko di gërëm itam waa daayira Touba ci kanam ñoom itam seen pëseef ak seen taxawaay adduna sépp xam nañ ko ndax waxuma la ci màggal yi waaye diiru at mépp lépp lu sëriñ bi yëkkati rek ànd na ko ñoom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 kon mi ngi leen di ñaanal Serigne Touba mi nga xam ne moom ngeen di jëfan te di ko liggéeyal ci dëkkam bii yàlla na leen ci gàtt yéen itam bu ngeen àgg fa ngeen jëm. di gërëm itam waa daay waa daayira xisbu tarxiya ñoom itam seen digg ak Serigne bi ñëpp xam nañ ko ndax ba ngeen jugee rek Serigne bi nee na naka jekk dama leen di wax ne eh, kuy xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Serigne Touba dara jomb na ko.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 li ñuy jëf di ko jëfal sëriñ bi yàlla nañ ca dajeeg payu sëriñ Tuubaa di gërëm itam nag waa nguuru Sénégal ci njiitalu président Macky Sall ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ma ne naa ko jottali nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom yàlla da ko booleeg moom lu yàgg njëkk muy nekk jataayu sëriñ Tuubaa moom ci moom yaakaar lool nee bi jataayu sëriñ Tuubaa bi ak see itam yaakaar ji gën a yokk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 ba ca des làmp yi nga xam ne Sénégal gépp lañ ko doon def waaye sedd nañ ci Touba lu ci seddu benn dëkk loolu moom itam ñaari milliards yu tegal dugg na fii ci biir dëkk bi ba ca dolli ko waat itam mooy fi nga xam ne fa la ñuy defaree mbalit bi ndax xam ngeen ne mbalit sono na dëkk bi loolu foofu itam def nañ fa lu mat juróom-ñaari milliards ak yeneeni liggéey yoo xam ne eh, xëy na sama xel teewloo ko fi mu toll nii. waaye boo ci boolee assainissement bi bëgg dikkaat mi ngi tellu ci boobu 23 milliards ak étude bi nga xam ne ci weeru septembre bii lañ ko war a tàmbali ngir xool réseau bi ak li koy defaraat xool liñ ci war a waat lépp ak fexe ba ndox mu neex bi ñëw Tuubaa euh, cabinet ba ko ba ko war a defar gagné ne marché bu war ko tàmbali septembre bi loolu itam liggéey bu rëy la boo xam ne itteeloon na sëñ bi ndax sëñ bi damaa waxoon ne ma xamalal ma ko ne ko ci bi. bu toon moom day somb bu rëy waaye kon ci ndox mi sama yitte ci laa koy jëme lool itam ba mu ko yëgee def na ci yitte ak yeneen yi nga xam ne teewlu ko waaye lool rek mën naa ko ci tudd ngir sant ko bu baax ci ni ko sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha santaane di ko ñaan sëriñ Touba mi nga xam ne lu ñu def ci jëkk bi rek moo tax yàlla na ko ci fay lu koy njortoon di jeexale rek ci loo xam ne ñëpp ci war a jàngate ngir mu dolliwaat suñ pëseef ak suñu yàqin suñu digg ak Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall dafa tëdd ba wéeradi Serigne bi yónnee Serigne Mor Talla Fall ci moom nekk boo demee nga seetal moo ko man demee fekk Cheikh Ibrahima boobu wéeradi gi sonal na ko lool ba fa jug mënu fa tëdd ndax loolu nit yàlla yi ay nattu la yu tege seen kaw ba Serigne Mor Talla ak Cheikh ci maam Cheikh Ibrahima Fall nuyu ko ne ko Serigne bi mu yónnee woon ne woon naa la ko seetal ci wéeradi gi. Cheikh Ibra ne ko euh, nit de boo ku weer di boo koy seet da koy jox lu mu yóbbu ndax da nga ko joxub yóbbu ne ko seetale ma ko lii ana alalu la baam ba jox nga seete ma ko mu ne ko moom du joxuma dara waaye nas tuuti rek euh, bi suñ mortal faal waxee moom bay jub di tàggoo Cheikh jub di ko gunge daay tàggoog wér digga tàggoog wér digga ba mel ne dara mosu ko jóg mboolem lu newoon coom ci kàttan ak dellusiwaat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 sëñ Touba ñun ñu rek démb lañ jot ci message ak tey jii na lool te yaatal seral nga xol yi dalal nga xel sëñ Ousmane jërëjëf Mbacke jërëjëf micro